ça c'est sûr euh, alors Kebs euh, kon xam naa ñu dellu si ci wolof bi dans dans une dizaine de minutes. dans quelques minutes ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy wolof bi mais am na leneen loo xamante ne marqué na ci euh, actualité bi. Mhm, voilà mooy euh, problème mu loyer bi. loyer loyer cher na moom la ñëpp di jooy gis nga waa ji sax boo xoolee ci reportage bi euh, da dangay da ngay yéemu sax ni mu koy waxee cher na wër naa. Dakaaru cher na cher na te defe naa moom moo jàmbat wante euh, ñëpp rek li nga xamante ne mooy problème mu loyer yëngal na leen bu baax a baax. dafa doy waar parce que soo soo ñëwee fayeeku sa salaire nga xam ni des fois même plus de la moitié. salaire bi nga dugal ko ci loyer kese te fekk courant ñëwagul ndox ñëwagul. dund bi ñëwagul dépense ñëwagul. accident dëkkuwaay xat. Hmm. dañ la koy louer très cher mais c'est très exigu des fois da ngay am problème sax pour dugal say meubles. Ah, doy na waar de. en tout cas yàlla ñu yàlla tàggaleeg moom. j'espère que député yi war a dem. Ah, assemblée si élection yi. Uh-huh. Euh, législative yi su jeexee. Hmm. dinañ ci penché wu jéem a taxawal projet de loi yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla loi bi war mën a wàññeeku. waaye na wàññeeku moom la sénégalais yépp di jooy ndax tamit métti na lool euh, comme ni ñu ko waxee dëkk waaye xat na pay gi seer na boo fayulee am problème euh, yàlla ko yàlla saafara daal la ñuy wax <laughs> yeewu leen na ñu jàll nag ci wàllu météo ndax tamit euh, boo bëggee génn nag loo mën a def ci àdduna il faut nga xool tamit nan la saytu temps bi jaww ji xool lu ci am ñu jàngat ci météo bi lu am solo la pour téléspectateurs yi ñu war a génn seen kër tey ci suba gi euh, loolu nag jéena ba Seydou Ba moo demoon xoolal leen ko ñu ànd setaan ku ñëwaat.

plus faibles à modérés sont prévus donc sur la région de euh, Kolda. Comme vous le voyez donc sur la carte euh, du jour, euh, plein de soleil au nord du pays, à Podor et Matam, au centre du pays également, vers les régions donc de Kaolack et de Diourbel. Par contre, il y aura des nuages, une alternance donc nuageux sur le littoral entre Dakar donc et Saint-Louis. Et vous le voyez au sud également, on a un un ciel couvert mais avec également du soleil. sur les régions de Ziguinchor, de Kédougou et de Tambacounda. la météo prévoit donc des plus à modérés euh, la région de Kolda. Ce sera donc en fin euh, d'après-midi. Ça nous permet, euh, chers téléspectateurs, de parler donc des températures du jour. Nous avons une maximale à Podor, Podor qui enregistre moi, et puis une minimale ici à Dakar la minimale de Dakar, de euh, Podor. Ce sera donc pour les températures du matin. Retenons que les températures du matin seront comprises entre 23 et 27 degrés sur l'ensemble du euh, territoire. Nous aurons 23 degrés au petit matin à Dakar, 24 euh, à Saint-Louis, 28 euh, à 28 degrés à Podor. Nous donc 27 à Matam et au sud du pays, les températures vont varier entre 23 et 24 degrés. Et puis à de 15 heures, la canicule sera bien présente partout à Podor. Podor qui enregistre 43 degrés. Nous aurons donc 42 euh, degrés ici à Matam. Louga enregistre 41 degrés. Djurbel 38, Kaolac 39. Et au sud du pays, nous aurons donc 37 degrés à Ziguinchor, 35 à Kolda. Et puis euh, Kédougou enregistre 37 degrés. Tambacounda 39 degrés. Et puis Dakar aura bien évidemment 28 degrés puisque donc euh, les vents marines ont une influence sur les températures. Il fera moins chaud sur les régions

42 kon mbokku téléspectateurs yi lu ñu mën a jàpp kon ci météo mooy tàngaay bi ba léegi ma ngay wéy kon ci bit gànnaar gi ba léegi nag Podor moo jël raw gàddu gi am ñeent fukki degré ak ñett Dakar moo am euh, température yu gën a néew am euh, ñaar fukki degré ak juróom-ñett ba léegi nag taw yi ma ngay ñëw waaye euh, nu muy ñëwee kon taxu koo bari noonu ci bët sàllumu réew mi tey jii Kolda la météo ne dana taw waaye ay taw yu yamamaay lay doon na kon gërëm leen bu baax ci déglu bi di nuyu soxna yu taar yu nekkoon ci plateau yeewu leen ba suba incha allah ci xibaar ñeel météo jërëjëf ba ci xibaar yi ñu indil xam naa ni yaa ñu gën a taaru sax merci ci compliment bi euh, tey nag Dieynaba ba lu ñu indil mooy canicule fépp Sénégal même si dina aw côté yuy xaw a taw donc rek ngeen jël seen ay matuwaay moytu naaj bi tuuti te dinaan ndox bu bëri keps foog naa baax dinaa ndox bu bëri soleil bi nee na jant bi mi ngi euh, fas ne fenk ci 10 heures 41 minutes mm. euh, bari na bàyyi xel te Dakar tamit fi ñu toll nii dafa nar a fas yéene féex rek moo moo tane waaye tàngaay bi moom bu fekkente ne Dakar moom moo gën a féex moom xaw ñu nekk Podor lan lañu ñuy wax parce que am na lu mu wax ci Podor aussi en tout cas ñu ngi koy remercier bu baax Dieynaba Seydou Ba ci euh, anam bi muy defee li nga xamante ne moom moo di euh, météo euh, ñu jàll ci li nga xamante ne mooy la une des journaux ak Cheikh Tidiane Diaw voilà euh, Joséphine que nous saluons qui vient de nous rejoindre <laughs> bonjour Joséphine <laughs> bonjour nous démarrons avec l'Observateur avec ce nouveau scandale donc enquête sur le scandale euh, du collège Asselar euh, de Waguñaay euh, photographié à la tête entre les jambes de son élève le général menace de se suicider Adé l'enseignant incriminé parle de montage et déserte l'école et puis au sein de la mouvance présidentielle Macky vers 23 juin de remous Maître Alioune Badara Cissé, ministre des Affaires étrangères, Macky Sall, a été bien élu pour un mandat de 7 ans. Et puis ce contentieux Waflash Fesman Marsané qui réclame millions de francs CFA à Aziz Libération, euh, qui euh, revient sur euh, les marchés de la construction de l'aéroport Blaise Diagne, passé de gré à gré le scandaleux décret de Et puis budget éducationnel 80% absorbé par les salaires. La une de l'AS, l'AS qui s'entretient avec Dibo Letika de l'URD. Diboka donc qui met les pieds dans le plat. Si à la place de Wad, ce serait silence assourdissant. Et puis immixtion campagne. Bokogiskis porte plainte devant le Sénéra euh, Le quotidien qui s'entretient avec Ngoné Ndoye, ancien ministre des Sénégalais de l'Extérieur, Wade Mbeijak Diop et moi. Et puis, euh, toujours euh, cette affaire euh, de l'immixtion du président de la République euh, dans les législatives, Boko Kiskis, donc qui va saisir le Sénéra et la Sénat. Et puis, nécrologie décès hier de shérif El Valitsei. La presse perd un de ses cœurs. Le soleil, remise du rapport de la Sénat, Macky Sall souhaite des législatives transparentes, de dire la démocratie une réalité incontestable au Sénégal. Et puis, euh, le journaliste shérif Elvalid Sey n'est plus. Sud Quotidien, urgence donc euh, signalée, l'hôpital euh, mouroir de Ziguinchor. La ministre donc euh, de la Santé, Eva Marie Kolsek, interpellée et puis décès de shérif El Valitsei, toujours à la une de Sud Quotidien. Le populaire, en marge du Kazuradiap, maître euh, ABC, euh, Aline Badara Sissé, corse le débat sur le mandat présidentiel. Ce mandat-là appartient au peuple. Il n'a jamais été une demande sociale pour les Sénégalais d'élire en président pour 5 ans. Et puis Mamadou Lamine Diallo qui réagit. Je pense que Macky Sall ne reviendra pas sur ça. Il ne fera pas du wachet. Et puis nous bouclons avec Sunulamb. Sunulamb, première apparition aux entraînements hier de Modulo. Modulo donc charme par sa forme physique. Et puis Bombardier qui réagit euh, après euh, la prédiction de Saul Benhomme. Elle a raison, il y aura un chaos. Voilà. Euh, la, question reste de, de, de la, la, question reste de quel côté le chaos Bon côté voilà. lay Le chaos, oh, en, en, en, tout cas, Tafatine, lors de sa dernière sortie, il avait gagné presque par chaos puisqu'il avait tellement battu... Euh, le plan de Balla Gaye là qu'il avait fini qu'il a fini par abandonner sur décision médicale bon mm.

as euh, bu mu mérité bu baax a baax Chérif El Walid Seye je pense qu'ils ont dit au Kenya oui au Kenya au Kenya et puis mm. décédé de suite en cordon AVC muy ah feebar boo xam ne jamono ji franchement. Mhm. Euh, je sais pas comment ça léegi dafay sax dal jeunes yi. alors que avant dañ doon boo amul yenn âge yi mhm. war nañ xoolaat daal lan moo koy andi. je pense que euh, ngoone ngoone ngoone war nañu gën a. kii defal ñu si kii pour ñu xam. pour ñu xam feebar bu doy war la ñu bari. kenn xamul daal noo koy. prévenir est-ce que lekk bi aussi. <laughs> waaw parce que des fois suñu doon dal mag jékki-jékki di dal. population bi ak tam xam naa mm, coono àdduna xam nga ni mm-hmm. gars yi dañuy tës tësi ba fa faare fa. Mm, jaare fa daal en yàlla na suuf euh, oyof ci kawam un grand monsieur de la presse boo xam ne euh, génn na àdduna Chérif El Walid